la sant ci waxtaan wi nga xam ne seq nañ ko certainement on a évoqué yenn ci ay ponk yu gën a fas ci wàllum actualité lan rek ngay tëjee. waa li may tëjee mooy euh, di jooytu rek euh, suñu détenu politique. yi nga xam ni ñu ngi bëgg yàgg ci kaso bi. au premier chef desquels euh, Cheikh Oumar Diagne bi ma wax ni il est candidat à l'élection présidentielle Abdou Karim Gueye nitu dëgg aw ak waa nitu dëgg valeur yëpp ñoom Thierno Sall ñoom Ousmane Sarr ñoom Beyna Gueye. boo gisee ma jiital ñooñu c'est parce que ñooñu dañuy xeex pour liberté te su ma nee xeex du ñu ay taalkat du ñu ay tojkat ñoom bu leen alkaati jibee sax nii la ñuy def tout le monde voit bi ñuy changer code de procédure pénal ak côte pénal ñoom ñoo dem guddi buntu assemblée nationale ñu jàpp leen te pourtant loolu moo yombal euh, euh, maintien en prison opposants yi ngay gis yëpp léegi parce que certaines libertés dañ ko criminaliser léegi ñoom dañu avant-gardiste dañuy teel a comprendre affaire yi euh, jour bi premier ministre wootee société civile pour naan leen li ñu sàcc ci Covid bi matul dix milliards euh, ñoom Ousmane Sarr ak ñoom Benaga yi dañ dem foofu yooxu libéré Pape Alé boobu Pape Alé mu ngi ci kaso bi ñu jàppale ni leen ràpp ci kaso bi donc ñoom xeex nañu pour liberté détenus politiques yi ba dem ci kaso te tey jii jàppaat nañ leen dugal leen kaso kon jot na kuréel yi créé wu yëpp ñu poser ay actes yu yu yu concret pour la libération de ces détenus politiques là notamment Ousmane Sonko ci la bokk mais ñi nga xam ne ñooy xeexal nit ñi nit ñi war nañ leen xeexal bu ñu nekkee diggante soxla nañu loolu loolu mooy sama appel mhm. et et et par-delà eux tous les autres détenus politiques yi nga xam ni seen opinion rek lañ leen jàppee comme Bassirou Diomaye Faye comme Fadilou Keïta Hannibal Djim ñu ni c'est le poumon économique il faut l'éliminer pourquoi collecte d'argent Amidia transfert d'argent Orange Money affaire force spéciale kenn waxatu ci depuis kañ force spéciale yoo xam ni kenn mënu leen a kenn mënul xam ñan lañu kenn mënul xam lan la ñuy def plutôt ñu téye leen ci kaso yi ba tey loolu c'est inacceptable tey nit ñi war nañu régler problème boobu ci nu mu gën a gën a gën a gën a gaawee surtout que mhm. pour cas où Cheikh Omar Diagne c'est un candidat à la candidature commencé na ay parrainage donc kooku dañ ko war a remettre en liberté parce que tey wuñ ko dara lu dul benn conférence de presse boo xam ne maag moom a ko defandoo woon ak Dame Mbodj moom ñu seppi ko pour sa posture bi mu la wax anti système anti franc-maçon anti anti système. Mhm. tënk lépp. Euh, ñu ñu tënk ko ci kaso loolu vraiment maa ngi koy ñaawlu di woo nit ñi organisation yi nga xam ne et puis COLIDEP. Mhm. Euh, waruñu ko war waruñu ko noyé ci yeneen cadre mhm. parce que quand même posé woon na ay actes en faveur de la libération des détenus politiques. yoo xam ne c'était des actes avec même ci plateau de la nation. mais léegi nag dañ ko xaaw a dañ ko xaaw a uuf. donc war nañu retrouver seen autonomie d'action pour ñu continuer cette lutte là bi ñu doon def. incha allah jërëjëf en tout cas merci beaucoup monsieur Clédor Sène ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant euh, tey moo nekkoon suñu gan ci ab entretien spécial boo xam ne sekk nañ ko entre suñu ay confrères yu MT m TV euh, ak euh, li nga xam ne moo di Feeling Dakar TV ñu leen di gërëm bu baax di leen sant di gërëm également ñi nga xam ñoo nekkoon ci xarala gi ak ñëpp ñi nga xam ne it i gan ak dayoom ñu li gën a fës ci wàllum actualité d'ici là portez-vous bien et woy leen di abonné woy leen également di topp suñu ay programme ndaxte ay njëriñ mu ngi ci bonsoir à vous jëf